merci beaucoup je voudrais tout d'abord je voudrais tout d'abord remercier et féliciter l'ensemble des responsables qui sont présents aujourd'hui. Rappelez que un de nos camarades qui a eu à retarder son voyage deux fois successives pour assister à cette manifestation n'a pas pu le faire parce que hier, il ne pouvait pas ne pas voyager. Je veux nommer le directeur Biram Faye. Remercier l'ensemble des responsables de mouvement, de sensibilité, de courant. Remercier les responsables de Jiver, de COGEF et toutes les sensibilités qui composent la jeunesse républicaine d'avoir accepté de s'unir autour de l'essentiel, autour de la COGEF, autour du président de la République. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont pensé que ce n'était pas possible. Mais ce qui nous réunit est très fort notre dénominateur commun demeure et reste le président de la République Aujourd'hui, si nous avons pu vaincre ces démons de la division, c'est parce que nos responsables et nos jeunes leaders ont pris beaucoup de hauteur. L'intérêt personnel sacrifié au détriment l'intérêt personnel sacrifié pour l'intérêt général. Tous travailler pour réélire le président. Tous travailler pour donner une majorité au président waaye di fatali ni que ñu bari dañu waxon ni que lii mënta nek ñu bari dañu waxon ni que jeunesse APR xeex ak xuloo xajar gee bari rek mais ñu ñëpp ño bokku lu ñu bëgg. di remercier di remercier bu baax di remercier bu baax ñi fi tew ñëpp.

war nañ xool ci ni ndaw ñi surmonter seeni problème pour njariñu Sénégal pour njariñu suñu parti pour ñu matérialiser vision wu président de la République lii buñ ko defee kenn duñu jéppi politiquement moo ñu jig dafa am cas école bu am récemment et magu parti bi laa koy wax cadre yi laa koy wax famille laa koy wax ak yeneen structure yi nekk ci parti bi yëpp parti socialiste français tay dem na opposition liko yob yóbbu opposition weesuwul ña nek ci biir ku ci nek am sa programme bañu sacrifier candidat bi nga xamni mo fa nekkoon ñun lolu duñu nangu sax muy commencer suñu parti ba ba am ñun ndawu parti ñun ndawu alliance pour la république yaakaar ñi ngi wo ñep ñu dajalo ndax tay ñi ñi jamar lool umpul kenn ni que ñu ci waxu bilan moy li sama camarade Thérèse Faye wax sos ak indi ay wax yo xamni ne ci dara sos buñu indi yalla àtte ñoom ñom bi ci bi ci ñëk moy ci référendum bi ñu ni dañuy daganal goor jigen buñu gagné tay def na at wèr amul après président dafa bëgg jël famille am jox ko euh, asa dafa bëgg jël famille am dugal leen ci état bi rakkam lay nommé président assemblée nationale tey firnde am na ni que loolu mënatul nekk suba suba dinañ créer yeneen sos mais ñun duñu saga duñu xuloo ñun croissance économique la ñuy wax bi muy jël réew mi 1 point 5 la ko fekk benn bu toftal juróom-ñaar tey FMI banque mondiale ñooy rafetlu suñu croissance ci ñaari at yoo xam ni juróom-benn yu toj ak juróom-ñaar moo ci am. bi muy jël réew mi courant buy coupé la fi fekkoon neewuñu courant bi coupé tul mais ku waxal yàlla ku waxal yàlla xam ni nam doon coupé coupé tu am na ay junniy sénégalais. am na ay junniy sénégalais trois cent mille familles juróom benn fukki junni sénégalais yoo xam ne amuñu woon dara ci nguur gi tey mi ngi leen utal lu ñu leen dàmpe muy bourse sécurité familiale du ma ni ñëpp a ngi faju waaye li ëpp ci sénégalais léegi ñi ngi faju du ma ni dund gi seerul waaye ñu ñëpp nangu nañ ni que bi mu faloo ba ñëw ak léegi dund gi donte amna yokku boko comparer ak inflation yi xamna li am ci dëkk bi amul ont kat yi yokk na sen salaire ñun ci loolu lañ bëgg ñu wérante xex la jeunesse républicaine nous gaddu pour wër commune yëpp ñaari weer Des ngi ci gens désinformation judiciaire lañ organiser Macky Sall day tëj ay nonam Macky day ñaata nit ñoo nekk ci opposition bi bis bu nekk ñu wax seen xalaat tay genn dem taxi seen soxla waaye est-ce que ku wàcc yoon est-ce que ku jalgati yoon dañuy toog di la seetaan parce que da ngay xëccoo nguur li ñuy def li président di def li gouvernement di def li parten di def li majorité Benno Bokk Yaakaar di def amuñu ci kersa rusuñu ci nangu nañ cee waxtaan ak sénégalais yi nañ nangu nañ cee waxtaan ak opposition mais liñ dul nangu moy bu dem tok ñenti at tok mi at bañ ne élection xeyna jot nga créer say say sos di wax lo xamni ni ko ci dara yaakar ni man nga nax sénégalais lolu lañ ni ñun duñ ko nangu et gëm nañ ni que buñu andé suñu biir gëm nañ ni que buñu andé suñu biir ñoñu nga xamni ay ours polaire lañ ay ours polaire et ay commentateurs d'actualité parce que defatuñu politique politique politiques, nga dugg ci nous ñi xam li Nous xam seeni Nous nga ko Nous ñun waxuñ bokkuñu ci wax ni que réew mi Nous ku wax ak nous fuñ ko fekk scandale yi fi daan am scandale yi fi am scandale fi am amul ben scandale bu fi nit meuna yëkëti dal ni li gouvernement bi moko def wala li président moko def wala li majorité bi ñoko def amul ay sosi kessé ay sosi kessé japp na ni nak bis ni ki nit sos bu mu fi sosati warna andi firnde bi wala mu dem wax ak yoon parce que kenn mënta yaq deru jàmbur wax ci lula neex def ci lula neex après genn dem ñibi teug sa kër nalaw parce que nit ñi dañoo am njaboot ñi déposé ay fausse facture ñi déposé ay facture yu baaxul ñooñu ña nga ca loxo yoon ñi agressé ay nit ña nga ca loxo yoon ñi am seeni problème mu droit commun ña nga ca yoon ñoo ñooñu ñoo nekk ci yoon jàppuñu fi kenn di ko toroxal parce que day xëccoog ñun parce que ñun ay démocrate lañ gëm nañ ni que bu ñu xeexee ci dëgg xeex ci ngor xajuñu seen kaw am na nag ñuy wax ni dañuy gañe fii dañuy gañe fële fi ëpp solo fii dakaar la man gëm naa ni que incha allahu rabbi on va le parce que ba àddina de àddina ba léegi ay sos mësta féete kaw dëgg ay sos mësta man dëgg ay sos mësta yóbbu xel yi ay sos mënta këpp xel yi donte mën na koo këpp ak diir waaye yàlla suñu boroom mooy leeral ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jàpp ni que bii ñuy waaj a def ñun ñëpp ay ànd def ko di woo nit ñi ñu dal surtout ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñu pare di woo cadre jeune cadre sénégalais yi nga xam ni am nañ xel ak xalaat ñu ñëw fekk si président de la république autour du PSE nous bâtir Sénégal bi ñu Sénégal bi ñu Sénégal bi président Dick Dr ay Sénégal nous ñoo Sénégal, nous a Sénégal, nous wa parce que parce que l'idéal li def li mooy bëggoon nañ jox kàddu ñëpp. ngeen jéggal ñu ngeen jéggal ñu ngeen jéggal ñu s'il vous plaît ñu liñ bëggoon a def mooy jox ñëpp kàddu waaye xam nañ ni ko mënta nekk dañuy tënku ci ñaari kàddu yi ñu bàyyi journaliste yi posé ñaar wala ñetti question ñu tontu ci dem. salaamaaleykum.